waaw alhamdulillah rabbil alamin ma ngi len di nuyu yeen ñep xana kontaan rek euh, vraiment ça fait plaisir euh, par ma modeste personne ñu jox ma prix bu ni mel muy prix modèle citoyen africain waye nak euh, dama delo wat rek si ndaw yi nga xamne ñoma jappalé nek fep ci Sénégal ak ci bitim rew ak sama famille bi nga xamne gëm nañ ci man muy sama wayjur bu gor sama way bu jigen ak spécialement sama sama soxna maa leen koy dédié di leen wax ne ni que support bi gis nañ ko te incha allah suñ continuer si tànk yi gëm naa ne social bi dina gën a développé te Sénégal dinañ gën a jëriñu seen ndaw yi. waaw oui oui oui oui mooy thème euh, thème moom thème bu am solo la muy citoyenneté daanaka ci loolu la ñuy liggéey quand on parle de l' environnement social vraiment gis naa ne ni que liggéey buñ ci am mu United Project One dem nañ ba mu gën a attractive

moom moo nekk benn voie boo xam ne mën na euh, euh, résoudre problème yu bëri yu nga xam ne am nañ ko Sénégal di leen jaajëfal yéen ñëpp di leen wax euh, yeneen incha allah topp si samay ndaw yu may liggéeyal aussi ñu gën a jàpp bay lépp lu nga xam ne njortu nañ ko rek ñu mu am lu ñu ko gën a kawe jërëjëf